Euh, dafa naqarlu li dal Guy Marius Sagna am na ñu wax ñu ne par exemple manifestation politique la ay opposants xaw ma yu doon daje du raison mm-hmm. du raison ay nit yàgg nañoo nekk bitim réew di attaquer yenn ci ay pouvoir africain mm-hmm. bokk na ci moom fóor ña simbe moomu nga xam ne bàyyam daa wàcc jox ko mu doxal bokk na ci Ali Bongo naroon naa bokk Karim Wade mii ay nit yu nekk bitim réew di xeex euh, euh, euh, dévolution monarchie ne Ablaye Wade foofu lay jëm naam doon nañ ko xeex à l'intérieur du mais amoon na ay nit yu nekk ci bitim réew ni lii dafa war a dakk ci àdduna bi bàyyi wàcc doom yéeg mm-hmm. mais est-ce que yeggoon nañu ci dem ba dem fekk leen fi ne wa illaa ñoom ñu ñëw fii dóor Y'en a marre jóge wuñu woon fii dem dem dem Burkina Faso la xawma lan mm-hmm. mais gars yi après arrêté leen après libéré leen voilà mm-hmm. euh, bi nekk foofu tamit xawma nan bu Burkina Faso bi tamit la même chose ci lu jëm ci wàllam dévolution monarchique waa ji député Sénégal laag waru faa dem ak et cetera et la avant muy nekk député mm-hmm. député bi daf ko dab suñu gisee loo xam ne ci douane Afrique daf fee war a jóge ñëpp a koy xeex parce que Afrique moo war a changé xam nga Amina. Mm-hmm. dëgg la de ñun ñëpp ku ci nekk ñu ngi suñu biir dëkk. Mm-hmm. mais li ñuy naqarloo chaque jour mooy suñu continent bi chaque jour nga dégg ñu ne l'Afrique refuse le développement. <laughs> Afrique am na ñoo xam ne bëgg nañ la développement de mais est-ce que suñu dirigeants yi bëgg nañ le développement de l'Afrique est-ce que suñu euh, euh, euh, dirigeants yi bëgg nañu l'indépendance. de l' fii kan moo fi taxaw taxawaat ne Afrique dafa am indépendance ah indépendance boo xam ne da dégg ñu naan la France mooy premier pays producteur ci or te France amul or fu mu koy jëlee Amérique la koy jëlee Asie la koy jëlee. Afrique. fu mu koy jëlee France saay bu ñu waxee ne nangam mbirum or xel yépp ci Afrique lay ñëw xel yépp yépp yépp yépp yépp yépp yépp yépp ci Afrique lay ñëw. te du ñëw nag ci n'importe quel dëkk de France moom bu ñu ko tuddee xel yi dem ci Côte d'Ivoire xel yi dem ci Sénégal xel yi dem ci Mali. Mm-hmm. par rapport ak les pays anglophones kon nag Guy Marius Sagna jëf ji nga xam ne moom la ko nee nañu ay gros bras yu bokk bokk si si si si sa nguur ga. Mm-hmm. ñoom ñoo leen song ñu ñuy réunion muy demandé ne nañ leen def hymne national du Togo moom mission moo ko fa yóbbu mission moom moo ko fa yóbbu mu tombeeg lu ni mel. mu ñëw di leen jàppale am na ci plein sañ-sañ parce que ñun ñii dañ doon xeex am ay africain yoo xam ne dañoo nekk ci bitim réew même bu ñëwul tamit à travers leur poste dégg à travers leur sorti ci télévision yi mais di soutenir xeex boo xam ne ñu ngi ko doon def fii nii ci Sénégal dafa tax ñun ñu jógee fii gaa yi di leen wër wala ñoom ñu ñëw fii nii ci biir dëkk bi ñu jàppale di leen dóor mm-hmm. duñ la dóor de dañ lay jàpp mm-hmm. dégg nga barki dee moo njaay suñu avocat bi te du fii la ba fii may wax ak yow moo ñuy soutenir mais da dégg ñu ne dañoo dem di ko jàpp di ko dóor. Juan Branco boo defee lu deful kay lu wàccoo ak yoonu dëkk ba dëkk ba nag am nañu sañ-sañ. waaw ne yow. da nga def lii lii te article nangamu constitution bi. day def bañ léegi ak lii ak lii. xam nga li ñu ne offense au chef de l'État wane li mais nit ko toog ci taabal rek di soutenir ay nit ñoo xam ne dañuy politique comme moom nekk activiste te bu ñu fàtte ni Guy Marius Sagna naan député la mais avant muy doon député activiste la. porté na fi combat bu ne. porté na fi ko mais Guy Marius Sagna sax ba léegi nii am na ñoo xam ne moom moom dafa leen jaaxal moom ba léegi nii il continue à porter les combats yi nga xam ne moom la doon porté. ba mu nekkee activiste. ba mu nekkee activiste. ak ba mu nekkee ci opposition ak ci opposition. ba assemblée nationale bi bi muy daanu nii. mu ngi dugal ay question écrites am yu dul jeex. di interpeller les ministres de la république te ministres yi def nañ fi juróom benn weer kon moom waxatu la ministres yi la de daf naan ñëw leen ngeen wax ci problème foncier yu diw problème foncier diw problème mu lii problème mu lii problème mu lii problème mais muy wax ñu ñu jàpp ko ko dóor mhm. lii tax benn Afrique du dem lii mooy taalug réew suñu diggante réew nangam bëgguma ko tudd ndax loolu moom yàgg na juddoo woo leen woon lan moo ko indi dëkkub dóorante nag. de ko tas parce que fii tamit ñii mënoon nañ wax ne ñoom it am nañ fa ay doom lii maara day taali heureusement que Sénégal moom moom ñëpp gis nañ teranga ji mhm. teranga Sénégal yow Sénégalais bi ci moom da ngay dem yenn saay sax ba da nga naan lii est-ce que teranga rek la équipe nationale day recevoir xam nga ni ma la mhm. yow supporteru dëkk ba la ñëw ñu traité la benn traitement boo xam ni te supporteru Sénégal yi sax duñ leen may fu ñu nekkee seen nàkk mhm. alors ci yeneen dëkk yi nag c'est le contraire non seulement boo yeggee dañ lay yóbbu ci estade boo xamante ni nii enfer la jaxanama xañ leen ay billets duñ leen may jàmm di leen tiital di menacer di leen tiital di menacer di leen tiital ba match bi jeex rien que pour rek ñooñu moom nañ am ndam lu ñu ko mën a amee baax na. Hmm. fii nag Sénégal c'est le contraire dañuy leen dañ lay teg ci condition yu neex en tout cas lii dal gii mari Sadio moom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëp ñu ngi koy naqaru te bu ñu kenn wax nag nañu daa demoon dëkk jaagu wur naan fa nangam sangam sangam xool leen statut Guy Marius Sagna lan la d'abord lan la d'abord te par rapport à ça sax am na fi ñoo xamante ne ay étranger la ñu nekk ci réew mi fii ci réewum Sénégal bañ fa amee lu leen naqari moom la ñuy interpellé mu defal leen conférence de presse organiser leen marche et tout ça loolu duñ ko fi fàtte yàggul dara donc euh, c'est normal à que mu dem feneen di porter li nga xamante ni moo di combat surtout ma dem na fu nekk ci Sénégal dem na fu nekk di porter nit combat moom li ko ñor mooy l'Afrique du Sénégal kese c'est c'est une chose inadmissible en tout cas. lu doy waar. Uh-huh. lu doy waar a doy waar a doy waar en tout daal euh, te gii ak lu ko waay mën a wax constance sam parce que moom mënoon na ni tey ñoom ñoom waa Pastef yàlla dogal ñu falu man samay samay activité ak sama yooyu nag dinaa xool dañ ko war a repenser <laughs> parce que ni ma doon comporté woo ak léegi nag gars yii di ma bind di ma wax seeni doléance muy hmm. étudiant muy ASP yi muy waa FERA ñooñu noonu ñëpp nag léegi état moo leen yor hmm. te man Guy Marius Sagna parti au pouvoir du sax allié parti au pouvoir Pastef man dama faa bokk kon man war naa am neneen nu ma taxawee waratuma jàpp ministre di leen weer waratuma jàpp nguur gi di ko yedd ci ci mbedd bi waaw tension te gii ba léegi nii jógewu fa jógewu fa mhm. kon gii bu buñ ko xoolee rek ne waaw sénégalais la ingérence la def dugg na fi génn fi non non non non non mhm. Mhm. waaw lii ñu def daal en tout cas ñaaw na ba ca kanamu yàlla waaye autorités yi tamit waxtu yu jot na ngir bu ñu amatee kilifa gu mel ni gii nii ñu ñu ñu ñuy xool Euh, euh, di ko bàyyi xel parce que nag bàyyi ba jaan ja dem nga topp ca watatu la mën naa jur ab musiba mbaaba ko ba kii c'est député c'est député de la CEDEAO aussi voilà kii député wu Afrique la mm-hmm. da koy wax sax da koy wax sax waaw loolu sax nit ñi dañ war a bàyyi xel de mm-hmm. Guy Marius Sagna député wu CEDEAO suñu waxee CEDEAO nag kon pour défendre les intérêts de l'Afrique mm-hmm. de l'Ouest te bu ko neexee mu yaatal ko def ko toute l'Afrique bu ko neexee mu yaatal ko def ko ci àdduna bi yëpp yëpp yëpp fépp ay nekk mu ne léeg-léeg lii parce que moom continent nekkul député wu député Sénégal moom moo ko yóbbul dëgg la pour nga nekk député CEDEAO il faut que tu sois député d'abord sa dëkk fii nga dem dugg ci biir parlement africain bi lii lu légitime la muy député mel na ne dévolution monarchique bu am ci biir dëkk bi Sénégal bii ab député nekk fi ne lii dafa war a dakk mais démolition monarchie bu am ci dëkk tamit yow nga nekk député wu Afrique da ngaa war a taxaw ne lii dafa war a jeex Afrique kon ñoom seen nekk foofu ban njariñ la am ci boobu la ñu war a tas. syndicat wu paa yi la kay. <laughs> yow lan nga mës a yóbbu CEDEAO ci xeexu Ousmane Sonko bi yaa ngi ko. jëlee fa ndam nga am fa gain. Mhm. wala boo fa amee gain it du mujj fenn te duñ def benn sanction. kenn laa fi gis muy dof dof lu CEDEAO song ko muy Yaya Jammeh. te boobu affaire bi ni mu demee woon la xam nga diggante yaay jàmme moom ak ak Macky Sall moom yaa ma gën a xam. Macky Sall dafa assuré woon sa présidence bi te nee na yi jaay leen ma xeex. investiture bi fekk mu ca stade ba lii foo ngi nii taxaw mu ngi nii ku sa bàyyi waat ci dox la te nga ne kenn du ko wax. ruwaayam lañ ko bëgg a def. moo fa am. <laughs> mi ngi noonu professeur Sougou euh, ca Togo foofu ñu daal di fay agressé ki nga xamante ni moom moo di Guy Marius Sagna.